sénégalais ak seen bopp vox populi ne ma moo tax it ndakaaru moom dañoo jaaxle ba xamuñu fu ñu jublu gannaaw kàddu président de la république Macky sàll yi seen yaakaar nag dafa yàkkeeku ñu ànd ca ak naqar waaye nag ànd ca ak gëm yàlla xam ni lii la yàlla dogal ci ñoom docteur Saare ne ñetti weer yii ma def ci pandémie bi di mbas mi dafa mel ni ñetti weer ci sama àdduna laa daal di ñàkk ndax coonoog tëñ-tëñ ak daw rek madame Fall ne dama ne nguur gii ku yebul jàpp ni mëntuñoo compter ci moom déedéet ku yebul dem ak sa cëggal guy nguur gi ba nañu moom docteur Tall moom kenn xamu ko dina metti ñun ci wàllu wér-gu-yaram ndax wopp gi moom dana fi bari lool waaye tam sunu koom-koom dina nërmeelu jëm ci suuf moom monsieur Ndiaye ne ab njiitum réew daal dafa war a am gëdd ci askanam wan leen ni maay njiit te sama njiit dara mënu koo dindi source aaneyi président kay mani la dindi na état d'urgence bi de waaye wopp gi moom mi ngi woy di yaataa yimbe ci réewum Sénégal yéene kaay bi ne ma catastrophe daal la ñu am jamono ji ci wopp gi di mbas mi maison d'arrêt ak correction di kaso ba nekk ci Jurbel ñu bëri test nañ leen ñu am wopp coronavirus gi gi yéen kaay bi dama ab waay ju am juróom fukki at ak juróom-ñeent nekkoon ca kaso ba moo am coronavirus moom waa hypertension la am ñu yóbbu ko ca infirmerie bu kaso ba fa la wàllee bu infirmerie ba juróom-ñaar ci ñoo xam ne ñoom lañ ko làq ndool jant ba wàll na leen te fii fukki fan mënuñoo xaar mu wàll ñeneen le témoin yéen kaay ne mani la mbas maa ngi ci réew mi de waaye général bi nga xam ne moo jiite woon Sénégal moom moom wàcce na armam ci guerre gi wàcce na boppam jébbalu na joxe boppam l'observateur ma moom président de la république day dindi na état d'urgence bi waaye nag drame na am ci réewum Sénégal ci wàllu nañ leen ca King Fahd Palace ne dañoo loué woon te président de la république Macky Sall ne woon bu kenn génne kenn soo moytul na génne yi dina tàmbali ni ki ñoom boîte de nuit it ñu continuer tëj nee ñu boo moytul daañu attaqué président de la république cour suprême ëttu attekaay bi gën a kawe ci mbas mi l'observateur ne ma lu toll ci juróom fukki milliards ci suñuy koppar de def nañu ko ngir faj nag ñi am wopp coronavirus ñetti milliards ñu jébbal ko personnel bi nga xam ne ñooy faj ñooñee Dakar Times ne moo taxit réewum Sénégal day dafa mel ni lu nërmeelu ci wàllu koom FMI ma ngay jaxle nag ci dépense d'urgence yi nga xam ne ñu ngi koy def ci réew mi les économies Abdoulaye Daouda Diallo day xam leen nag junni milliards yi naka lañu ko daal ci moom Abdoulaye Daouda Diallo teg na fi ab plan boo xam ne day mooy doon plan de l'espoir turbine yéene kaay ne loo ci mënti dégg moom mii di covid 19 laal na bu baax baax réewum Sénégal ak koomam fi toll nii Macky ci wàññi nag gouvernement gi la jëm ca la jublu de yéene kaay groupe des bi ne ma liste nii am nay ministère yoo xam ne sax dañ leen bëgg boole mu doonu benn ngir ñu fay liggéeye wàññeeku dana taral mbir de moom président de la république Macky Sall direct news ne ma waxtu wa nga xam ne ña ngay wax waxu koom gu daanu tabaski baa ngi jub si njeextalu juillet gi lañ ko war a amal laaj bi kay du ndax góorgóorlu bi dina am lu mu jënde xar waaye ndax dina gis geenu xar geen geen bay jënd xar laas yéene kaay na ma coowal suuf day jeexagul ci réewum Sénégal suuf sa sa ndengleer moom ministre Abdou Karim Fofana xamle na ni mën nañ xool daal ab possibilité boo xam ni daañu collaborer ñoom ci seenu biir biir 24 heures yéene kaay ne ma ca Malika day coowal suuf tàmbali na fa ña nga joxeñ baaram ak tuuma nag maire ba di Momar Talla Gadiaga ak koppar goo xam ne jébbal na ko trésor descos daf caa dugal loxoom daal di daane lu toll ci téeméer ak ñeen fukk ci ay bâtiment regroupement bu collectif ña tool ak terrain yi ca Cité Chérif Abdoulaye Thiaw Laye laaj nag la nga xam ni moom nañ ko te ñu yàq ko te teguñu ko fenn les échos yéene kaay ne ma DSP day ña ngay setal seenu ñu ney takk der yi dañ doon sax-saaxee ñoo xam ne dañu doon toogaanu ñaxtu waa DSP ne mooy indi jafe-jafe waaye police daal ña nga woon ca la ñu nekkoon réew mi de la nekkoon jóguñu ca ca ñaawteef réew mi quotidien ne ma pédophilie bi détournement viol waaye di wan looloon xale yi day mi ci réew xale yooyu nag ñooy wax ci réew mi quotidien kenn ki ne moom dañu maa violé daal di may ëmbal ab jaaykatu daal laa ko def kenn ki ne moom 1000 francs la ma jox laataa mu yegg sama kaw keneen ki ne ab sëriñ moo ma jox junni ngir ma noppi keneen ki ne moom sama far moo ma violé ci sama lalu yaay keneen ki moom nee na ci auberge bu ñu fàtte ni coronavirus mi ngi na ñuy takk masque yi di raxas loxo yi respecter distance su un bi jàngoro jàngoroy coronavirus weesoo bakkan ya muy rotal ak yaram ya muy jàpp jàpp na it gafaga gouvernement bu Sénégal observateur xëy xamal ñu ne lu ëpp juróom fukki milliards dépensé gum nanu ko ci pajum maladie ko ame ñetti milliards ñu xayma ko ci li dem ci prime de motivation ngir personnel bi fajee lu jëm ci junni milliards yi gouvernement bi taxawee nag ngir ak ndëgërlaay ci xeex beeg jàngoro ji ministre Abdoulaye Daouda Diallo ci yéenekaay bi di Les di ci indi leeral mu ne ñetti téeméer ak fanweer ak ñaari milliards yu teg la ñu génne ci juróomi téeméer ak ñaar fukk juróom-benn yi war a génn génn ñeent fukk ak ñaari milliards yu teg génn na ci juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaari milliards yi nga xamante ni dañ ko sóoraale ngir santé bi juróom-ñaar fukk ak ñetti milliards yu teg génnit ci téeméer ak ñetti milliards yu nu sóoraale ngir yokk ndëgër laay dundu askan wi ak jàngoro yi coronavirus juróom-benn fukk juróom-benn milliards ñu fay ko BTP yi ak sphère ministérielle ñeent fukk ñaari milliards ngir fay arriéré yi ci frais location bâtiment yi nguur gi defi bureau terewul gouvernement boobee fas yéene taxawal ginnaaw corona bi plan bu bees jëm ci suqali koom mi enquête yéenekaay mi xëy fësale nataalu Abdoulaye Daouda Diallo ne plan ak yaakaar bi la ngir nag ak suqalikuwaat ginnaaw corona bi du ñàkk ak cakkanal waral tribune gis ne président Macky Sall ci wàññi dayo gouvernement bi ci la jëm yéenekaay bi ñëw ci ministère yi ñu jàpp ne dañuy dem wax nañ it ne fusion dina am maanaam dajaleeg boole yenn ci ministère jàngoro ji waral lii lépp moom mu ngi wéy ak loraangeem libération xamal ñu ne téeméer ak fukk ak ñaar ci nit ñu faatu ca lañ ci Sénégal diwaanu Thiès moom juróom benn bees ci ñaari fan am na ko ca prison diwaanu njaareem fukki prisonnier yu amee jàngoro ji sus foofee kay ca boobu kaso jéy ju mag a lépp nag mu ngi daal di tàmbale ci waay ju toll ci juróom fukki ak juróom-ñeent amee woon jàngoro ji teg ca hypertension moo ko wàll juróom-ñaari prisonnier yeneen yu mu nekkal ak it major bu infirmerie prison ba yéene kaay bi tiit sax ñu wàll fa ñeneen laas moom yëgal ñu loraange jàngoro ji ci l'hôpital Maam Dabaax Malick radiyallahu anhu ji président Sall jël bokk na ci yëkkatik état d'urgence bi Sud Quotidien boobu geste arrière la ni opposition bi da caa mer ba futt ne lu xew ëllëg moo mag boobu deltu ginnaaw muy Mamadou Lamine Diallo di Thierno Alassane Sall di Abdoul Mbaye Moustapha Diakhaté ne ko noonu ñoom ñëpp ci seeni réaction ginnaaw yëkkati état d'urgence ji mooy président daa sàkk yi dafa seytaan professeur Moussa Seydi jiite fajkat yi gàddu maladie coronavirus ci Sénégal moom gis-gis beneen la am ci njiitu réew mi ci Le Soleil mu ngi rafetlu bu baax mbébét gi mu am moom président Sall jëm ci gën dooleel hôpital yi ci wàllum jumtukaayum paj ci Sénégal moom njiitu réew mi nag ci laas ñu jàng ca waa Ndengeleer béykat ya di sàkku ak taxawaayam ci coow li dox seen digg ak Babacar Ngom ngir ñu delloo leen ñu ne seeni suuf ministre Abdou Karim Fofana mu nga fa woon ngir dox tànki jàmm demoon na ca Ndengeleer ci jàpp na ne waxtaan mun na am juboo naka noonu moom Abdou Karim Fofana nag ci wàllam soxla na ko dox diggam ci wàllu jàmm ak commerçant yu Sandaga ndax mbébét gi jëm ci yëkkati defaraat marché gi ñu jóge fa laalee fa ci lañ lànk muy lu ñu jàng ci observateur ñeneen ñu lànk di liggéeykat yu hôtel King Fahd Palace kilifa yaa bëgg a ñoddi waat diirëb technique bi ci ñaari weer yeneen fekkoon ñu toog ñetti weer waral seen ak lànk ñoom téeméer ak juróom-ñeent fukk ak ñaari liggéeykat syndicat bi fas yéene soobu ci xeex bi Macky Sall Abdoulaye Wade kenn lànkul woon ndeke sa morom lenn ab baara yëgoo sax ca amoon ci gis-gisu yéenekaay bi di lii quotidien dale ko ñu ne ci génnu Karim Wade ci kaso bi ba ci ndaje u Abdoulaye Wade ba woon ca palais lépp nag waroon jeexee ci gouvernement d'entente nationale corona bi ñëw ñu ne yàq plan yépp làmb ji moom Sénégal su plan yi yembe dina dekkiwaat ak promoteur bi di Gaston Mbengue moom Gaston mi source a jàppee kenn wala ki gën a ràññiku kàngam ci promoteur yi Sénégal fas na yéene taxawal Balla Gaye 2 Gris Bordeaux tafaatin mu ne nag su lankee dajeg rëg-rëg du ko amal mbër meneen ndax rëg-rëg la sóoraale woon ngir moom sunu lamb ne Gaston décroché na revanche du siècle Balla Gaye 2 Gris Bordeaux ca loolee staff bu Balla ko yéene bi ne Boy Niang moom juróom ko juróom

le trio de choc qui explose les réseaux sociaux. Trois véritables phénomènes, les meilleurs de leur génération, les maestros les plus puissants de la comédie, vous reviennent dans que sa mère, les docs de la scène, les plus fous de l'espace théâtral sénégalais. cey fu ñu jëm cey fu ñu ak Saner ak Mbondoumbe ak Saner ak Ñankou le golden boy du théâtre sénégalais kan moo gën a dof ci ñett ñi À suivre dans Spécial Tabaski sur Sénégal 7. dama laa wala ñàkk fulla wala ñàkk fayda wala ñàkk jox cër ba yow respecté wu ma surtout yéen aawa yéen jigéen ñi nga xam ne yéen yéen pour yoon yéen yéen seen jëkkër seen borom kër sax pour yéen ay nelawam yéen a ko moom. jënd ci ñaari xar ñu teg comme ni nga ko daan defee chaque année. tabaskee benn bi benn bi ñu jaay ko def ci suñuy saf safal. yaa tegg lii. bu ma jëkkati nga ni mbote. waaw loolu mooy. neel kuy. ah kuy. kuy. yaay sa papa delloo na kuy. ray poobar yi man du ma nekk di sonal sama sax kii bu yeboo nga ko saraxa ko wala nga maye ko xool noo def moom. man liggéey laa xam guddi jot ma tëdd nelaw jàpp sama ñaam bëgg nga ay kebatu nag baal ay wax. dama bëggoon a kii. kii tëbel. nga papa dugal dugal dugal. papa yow nelawaan bu bon nga am ni nga nelawee baaxul dara ah. tabaski ci fajar laa ko jël naa la ko indil ba ba ca ga jërëjëf. jërëjëf sëñ bi ma mbokk ya. bëgg xar mi tëbu. waaw dama bëggoon xar mi tëbu ko. ah bu mag baa ngi nii xanaa dégloo ko Père Ndiaye le grand tëbukat day xar ak ay ci loolu. yéen da ngaa bëgg ay affaire ko trop lu ne loolu baaxul dama laa bëgg rek xam ne amul à amul danger moo tax am daal léegi xaar ma commencé ma daal wala sama karaw gis nga am naa karaw. xoolal <laughs> xar mi lu mu toll ah. tons xar bi maa ngi koy xontu li nga may jox yow maa koy def mais li xar bi di def day tiire rek. xar bi day tëb rek. tëb mooy lan xamoo luy tëb. ana gawsu gawsu gawsu kolle neel gawsu mu indi jaasi gaaw xar maa ngay dee ma ngay dee nee ko ma daw si daw si gaaw gawsu gawsu. la ilaha illallah. li ngay gën ma gënal ma xar yi baax nga ma indil xar mu corona kii ba mu ñëwee ci kër gi di daanu di wàccoog di di di réeku laa la xar mi dafa nga ba indi fi 500000 teg sa loxo nga may def nii di ma jéem a ruube lii yëpp yaa ko def waaye nag auto solution euh, da nga koy yóbbu lakkul wala da nga koy ceeb bii dafa noir et blanc xoolal déet déet Cheikh léeg-léeg day dugg ci waañ wi déet xoolal nga ne ko bëy ngay tabaskee kan ci sama yumpaañ sa yumpaañ lu ma ciy wax moom lu ma ciy wax ak moom moom ndigal lay wéyee di baal di jël décision sama ginnaaw per bëy bi laay bañ a dégg ci kër gi bu wax wax du bëy waxu bëy laa bëgg nga teg xar mii des si kër gi moom laay tabaske bëy yi fu mu xam nañ jëm neel waaw neel waaw yar réew waay comme maa ngi ndax sama bopp rajaa noppi bu jooy noppi bu jooy kilifa nga kilifa da jooy noppi naa lii lan la ah léegi daal yow per da ngay wër say turandoo ca àll wa <laughs> <laughs> am xar ci boppam bu tëboo boo ne ko jàkk rek war nga koo xam man bu ma ko laalul woon sax mën naa xam ne xar mi tëbu na. Eh, Tange yaa ngi imaginer ñu xëy rek bëy yeeg xar yeeg yëpp rek deewandoo loolu noo koy imaginer action bu rafet la de. per gu xar des na këram. per gu xar des na këram. Eh, per gu xar na këram. per gu xar des xool. fan lay xewee Sénégal 7 point com foofu lay xewee. bés ni que tey kër gi kenn doon fi nelaw Diop maa ko wax Diop kaay téemaa na yow ci buntu bi. doo ko fi ñebe la dem na yow Diop. kër gi kenn dootu ah! di ñëw. Mhm. nañu rey xar bi ba pare parce que ca. ban xar nga wax Diop. xar mi ko ko fi rey ma toj sa waay. eh Diop yow wii ma jaamite yooyu yëpp day dudd da ngay duddooy wax ji den na yet ngay yaay den na jaamite bàyyi nay def waay yaa ngi may doote yi den na ni yaay den na. waaw kay dama koo dagg de. lu tax lu lekk ma ne dana lekk dugg laa wax. lekk dugg moo leen gën fuuf boo ko joxee dugg bi ma rey lu leer na la wax. reyal dégg li ma la wax rek daal xar mi du lekk dugg. dinaa ko xanaa tey na bëgg a topp doo xar mi. Modou Lo quatorzième am col la am col la am col la la dana daan na ma. xar mi li ko dese ci dund. Hmm. fii ak trois mois. Hmm. su bruit duggaatee ci noppam lu bari mën na dee ko. Oh, balaa moo dee ñu rey ko. xanaa ñu rey la yow. xayam mi daa mel ni sacrifice te yee na ni ma téema ko nii noo ko ko defee. boobu nga wax ni. Eh. Eh. kor joor jenge. kor joor jenge moom. léegi baax na baax na. waaw noppi leen noppi leen. sunu jotaale. doy na. doy na kan doy na. fi ma tir bi delloo sama wax ma des la nga dem. Eh! jaa taa yéen ma paat bi. tey waaw xaat bi moom bu ñu ko sàngee duñ ko gaaw a dugal dañ koy si mbedd bi waaw ñu xam ne am nañ xaw kon ñëpp xam ne ñun nag am nañ xaat waaw tey tabaski ren day day neex day day neex jàppal eh ñu sama mbay tamit tey tamit tey nii na ma yéenee bandi dogali ka tam ba ma ne ma def ma def la fi kaj tool doyul doyul doyul doyul wax bi na de ndax xay mi waaw. yow tey yaay mu sa yaay. bay ma la bay ma la bay ma. sëriñ bu jël sama yaay ñoo ko def maa koy fay bu tooba yaay. Oh. tey. tey lu ko mag du ko si na. monsieur sëyam et eh, bi nga taxaw ci mbir bi nga xullu rek nga wax ah Fallou Diop ñoo Fallou Diop mu yor kar bi mu yar kar bi mu yor kar bi mu yar kar bi mu yor kar bi waaye eh, xam naa bay day xam papa yi xam nga daan ko dem bàyyi ko xam baax rek waaw waaw waaw bàyyi na bàyyi Diop da nga rew yaa ngi xaru de du fi yett xam du fi yett xar bi du fi yett xar bi ah. sa ñaawaay bi nga mel ni xar mi yow eh, dama lay rey de ma ne xar mi day lekk xar mi rek ngeen am droit lekk si biir kër gi boo leen bëggee la lekk ngeen wuti ko xar mi day lekk. Tabaski ren bi nañu dem seeti waar Sénégal.